troisième mandat ak programme ci présidentielle bi lañ taxaw président Macky Sall gis nañ ni temps benn moom dañoo tàng ñoom ñëpp ñu ngi naan ñu ngi koy ñaan à ce que mu ut li nga xamante ni moo di deuxième quinquennat parce que ñoom ba tey bëgguñu employé la mu troisième mandat ndax jàpp nañ ni dese na ko ba tey benn mandat. man du ma avocat du ma juriste du ma constitutionnaliste en tant que citoyen lambda damay déglu constitution bi en tant que politique man suñ ne mun na ne Kanda sama jiin lay sol sama basket porte combat bi kenn du ma jiitu ci kanam parce que sénégalais yi dañ ko soxla démb rek génne na cent milliards subventionné ko pour dund gi. Hmm. on a besoin de saa Sénégal lu ñu am tey am na ñoo xamante ni boo leen yeewoon seen bàmmeel ne leen fii Sénégal la ñu weddi ko dafa defar Sénégal liggéey Sénégal. mais da nga wax rek lu am solo da nga ni euh, bu ko constitution bi mayee. yow di nga sol sa jean baax sa campagne. waaw ko constitution bi mayul nag. eggaguñu foofu. beneen bi mais il faut anticiper. non non du ma anticiper. parce que non man man murit laa. tey rek li xew xam nga doo dégg ñu naan murit moom au bi ñu nekkee université da ngay am léegi xaalis nga taal ko ñu wax la ñu murit la au jour jour nañuy dund. beneen bi mooy Barthélemy Dias Ousmane Sonko maître Doudou Ndoye yenn constitutionnalistes yi ñoom ñoo toog ñu ne juridiquement lu benn constitution boo xamante ni interdit na Macky Sall mu nekkoon en 2024 loolu benn la politiquement bu dee capacité bi am na ko bu dee taxawaay bi am na ko bu dee nit ñu mën porter combat bi muy góor comme jigéen mag comme ndaw am na ko historiquement li mu def ci santé def ko ci éducation def ko ci infrastructure ak yeneen ak yeneen war na ko may mu dem mu nekk candidat en 2024. da nga wax léegi nga ni euh, bu dee ànd na ak ñu mu war a àndal muy góor comme jigéen mag ak dama ne ñi mu àndal. ñi mu àndal voilà ci loolu euh, dama la mos a dégg nga ni euh, Mimi Touré bëggul murit yi mu nekk wax ju fort dama bëggoon nga expliquer lu waraloon tey jii nga yëkkati yooyu kàddu. Mimi Touré bëggul kenn faf boppam rek. nga ni bëggul kenn rawatina murit yi Mimi Touré boppam rek. foo teg loolu Fatou Euh, gis nga Penda Mimi suñ ko defoon tey président assemblée moom mooy jëkk génn ni Macky Sall dafa war nekk candidat en 2024 yëf yi yàggul 31 juillet. mais yàgg na wax ni nag moom musul ànd musul ànd. non mandat bi dama ni la. suñ ko defoon te jàpp ne sax lu tax kenn investir ko euh, à la tête de. xam lu tax kenn investir ko parce que nee na. xam nga bu nekkoon candidat on on allait perdre kii euh, fauteuil assemblée bi dañ koy perdre. lu tax man maa parce que ñu bëri ànduñu ak moom. ñu bëri jubawuñu ak moom Mimi créé na clan fépp Mimi indi na problème fépp Mimi toroxal na ñëpp toroxal na ñaata murit Serigne Béthio Mimi Touré dossier am lu nekk la ci wax ci loo xamante ni dara amu ci dara du ci dëgg ndax lan aide bu mu amal peut-être murit yi ama Mimi nag li mu gëm a bëriwul moom foog naa. mais président xanaa jëlu woon loolu yëpp en compte. mais c'est pas que dañ ko investir que dañ ko war def c'est pas que dafa nekk tëdd liste dafa nekk président assemblée d'accord ci sama sama conviction la man mais loolu dafa nekk lu nga xamante sax même boo ko waxul nit ñi yàgg nañ ko rumbalaat non man loolu dafa nekk sama conviction lu keneen xalaat moom la concerné mais man sama xalaat jubawul ak ñu bëri ñoo xamante ni war nañ ko jox euh, assemblée bi pour man ba pare da ngeen am problème personnel yéen ñaar sekkuñu ko mimi fële lay militaire xaw ma fan mimi sax kenn xamul fu muy militaire ndax moom amul base <laughs> affective bu teyee mu dem grand ñu rëq ndiggam bu subaa mu dem kaw la ñu damm tànkam mais yéen ñëpp depuis loolu ngeen ko ko wàññi paqueté naan ko ay amoo base di ko ko fàttali tout mais amu ko mimi ñëw nga ñu def la ministre de la justice def la premier ministre def la président benn institution mais am na loo xamante ni teraanga boo xamante ni nit bu la ko joxee li nga war def mooy chaque weer nga chaque àllarba nga jox ko àllarba mais doo ko xarab boo demee ba àndatoo ak moom toogal sa dafa mm. dafa am loo xamante nit da koy jombale boppam ah, mais ba tey ma nga taxaw assemblée dem ber sama langue bopp xeex yet day mat waaw mais bugguma bugguma sa añ bi waaye ma copp tuuti si ceeb beeg légume gi ban la am bugguma sa bugguma sa dara damay dem yoon bàyyi laa dem xeex Macky Sall bi ñu ko dàqee dafa dem yoonam ñaata yoon la Ablaye Wade dem pour ay nit dem pour jubale ko ak Ablaye Wade mu bañ gëm boppam dem xeex xeexam. Mm-hmm. noonu la waroon def jàpp nga ni maam Diop euh, c'est le profil idéal Mame Diop sa mbokk waalo waalo euh, yàgg ñu yàgg confier poste de responsabilité su ma amoon yeneen ñaar loxo sax damay tàcc ko mais gis nañ temps yi ngi souffrir quand même à l'Assemblée yenn député yi joxuñu ko cër ba ca war ñeneen bi ñu ñooy taxaw di ko nuyu. ñu mel ni exemple ñoom Guy Marius ak ñenn ñoom Barthélémy Dias passe mën ma waxal sa mandat professionnel de Guy Marius ah mais c'est un député nag maintenant député mais honorable dégg ah man mii dégg naa honorable waaw certes <laughs> te dama ko mérité waaw moom mérité dama rampé dama rampé ñu may jàpp di ma dóor di ma gaañ ci politique ma bokk ci politique naxuma benn sénégalais jooytuma benn ah, Sénégalais yor sama kër ko doon jàpp non kooku këllam la yoroon yalwaan non mais attends yalwaan na bañ jox ko oto dem nañ ba ay nit di cotiser ne dañ koy fayal appartement te bopp mi ngi dëkk Sacré Cœur gi côté Aminata nit ci def si suuf doo ko yëg déggoo fan yëpp ñu ne dafa xeex total ba pare waa dëkkaat di ko jox xaalis gaa yi gëmuñu li ñuy def gis nga ma wax la dara ñii di yuuxu nii ci biir assemblée bi yuuxu ci biir hémicycle bi fa la yem suñu paree dañuy dem gis ministre di régler gëmuñu li ñuy wax gëmuñu sénégalais yi. c'est du bluff li ñuy def. xaw ma bluff laa ko mën tuddee xaw ma traîtrise xaw ma trahison xaw ma lu ma ko mën a tuddee mais dañuy toog commission ba sax la fa am ak lii am euh, si biir plénière yi bokkul xam nga commission presse nekk fa mais plénière la ñëw am na yoo xam duñ dem commission. plénière plénière la ñëw def seen show suñu paree dem lijjanti seen business il faut ñu arrêter di insulter l'intelligence des Sénégalais les gens ont Mhm. d' accord Fathia fi ñu daanelee nag moo di see perspectives personnelles yow ak sa mouvement fan ngeen toll euh, waajal li nga xamante ni moo di présidence bi ak tamit foofee ca ndar lan nga dëgmal. bon instant bi moom ñu ngi wàcc benn affaire mais comme galgal duñ ko yóbbante mais ak benn bokk yaakaar bi parce que am nañ mouvement mais dañu bokk biir benn bokk yaakaar. Mhm. man ak sama sœur Aminata Gaye jéegi am na lu ñu wàcc après déclaration politique générale premier bi nga xamante ne le 12 lay am. Mhm. xam naa sax dinaa la ci ci invité. dinaa ñëw comme yow waa Ndar nga. mais am na lu ñuy waaj lu rëy di ci gën a fes mooy dañuy investir le président Macky Sall pour mu nekk candidat en 2024. parce que gis nañu waa Mbour investir. Hmm, j'ai pas suivi. waaw waa Mbour investir nañ ko. non naka àdduna bi yëpp investir muy Sénégal muy diaspora bi naka ñëpp investir. parce que c'est une chance pour le Sénégal. d' accord le mot la fin fooy tàggatoo gërëm leen sant leen. lay gërëm également. vraiment kontaan naa ak seen euh, plateau bu nice. merci di yàlla mu dem ba nekk télé bu mag a mag. amiin ngeen fës parce que sa patron moom vraiment euh, journalisme model la. Hmm. bokkul ak ñi nga xamante ni dañuy jàpp fii ñi nga xamante ni dañuy dévoyer journalisme donc di leen di leen remercier di wax rek waa Sénégal bu ñu juum. bay jël ay aventuriers di leen jox réew mi am nañ chance am Macky Sall nga xamante ne c'est une fierté pour toute l'Afrique foo voyager dañ la ci dañ lay naw gis nga sous région bi nii soo nee Sénégal nga jógee dañuy wax ci Macky Sall ba yow mi ngi nekk Sénégal sax nga ni est-ce que man Macky Sall bi ma xam nañuy wax loolu soo ko amee da nga koy téye mais fekk ay violeur nga xamante ni seen viol la ak violenté ay criminel ay assassin mais sa gis-gis sax ci ci ci ci possible amnistie bu bu Karima Khalifa fàtte naa ko. bon man moom luy apaiser climat politique gu Sénégal dama ci d' accord. d' accord. mais comme du man maa war defar projet de loi. Mhm. comme nekk ma assemblée pour voter ko may toog seetaan. dégg nañ ko rek Ismaïla Madior Fall yëkkati kàddu yi à l' assemblée nationale certainement ñu ngi ci. non mais Karim su ñëwee sax baax na c' est un libéral famille libérale bi na dox parce que Karim bon bon man dama ko mës a défendre même bu fekkee ni mësuma ànd ak moom loolu indi sama dàq dafa mësul nangu ni moo jël waaye xalifa dafa ni du man kese maa jël bokkul donc suñ ko amnistie damay damay tàccu. d'accord yéegal fi nga nekkoon sa tàggatoo. <laughs> du nuyu waa waa Saint-Louis surtout waa Langue de Barbarie. nuyu ña nekk ñëpp euh, rawatina nag waa allure ñëw ñi nga xamante ni ay gor nañ mhm. euh, man am nañu ñu may wax sax fàccam yow amoo ay militant ay taalibe nga yor fu ma nekk la ñu nekk lijjantiw ñu leneen xooluma leneen bu fàccaam ne weex na tàll rouge nañu ne cur vraiment ñoo ñooñu awma seen fay dama leen di gërëm mais aussi di la di la leen remercier waat ci possibilité bi ñu may ñu ñu toog waxtaan ak Sénégalais xaw ma sax kan la ci Serigne Saliou Thioune la wala soxna Aïda Saliou sëñ Béthio mooy sama sëriñ si moom laa jébbalu d'accord mais jamono yi yaa ci kan yaa ngi yokk ci kan bon sëñ Sall sëñ Saliou Thioune d'accord donc Fatou Thiam lay remercier sëñ Béthio mm. waaw ah, maa ngi lay remercier bu baax a baax ci disponibilité bi. donc euh, ngay nit ko accessible également. di nit ku baax loolu moom dama la koy dama ci kanamu sénégalais yëpp très accessible baax oyof donc ñu ngi lay remercier ci wuy bi. di la ñaanal jàmm ci sa projet yi nga dëgmal yëpp rawatina foofee ca ndar ndax ndar lu la soxal la euh, ku la xam-xam ne yàgg nga porté combat pour waa ndar te nit ki nag fa nga yeewoo da nga ko war a bëgg da nga war a fexe voilà à koy waxee donc loolu dafa nekk lu également yéen ñi toog depuis tout à l'heure dañu seetaan di remercier également la régie ak la rédaction de Sénégal 7 ko ci di remercier aussi ki ma àndal Mass mais <laughs> aussi surtout mhm. di wax euh, jigéen ñi combat Amy Ndiaye bii ñun ñoo ko war a porter parce que man dama tiit si si jigéen ñi ma jox la bi affaire bi amee dafa am ko ma woo moom pour moom maa ngi ba tey ndeysaan benn femme dama ko gëj a gis. fekk may def ay statu ay statut mu woo ma mu ne ma man dama am lu ma di parce que Sénégal joxuñu cër jigéen ma ne ko bul wax loolu. mu ne dafa am problème ak jëkkëram jëkkëram hmm. dóor ko dóor yu metti mu dem si yoon. nee na commandant mi fa fekk ni ko non loolu grave dispute conjugale la nee na mu jooy génn dem bi mu demee mu divorcé. mu divorcé ñu toog benn moment mu ba divorcé jëkkër ji abandonné ko ak ak doomam nee na mu bëgg dem yóbbu doomam voyage ñu ne ko il faut mu am autorisation papa ci te moo koy fay moo jël en charge lépp bi mu demee du ko wax waa ji man te ñun ma benn loi la xaw ma mais loolu dañ ko war a corriger réviser ko c' pas bien. gis nañu maam Diarra fem porté ko keroog à l'Assemblée nationale. non man femme bi moom ko doon wax. Mm-hmm. mais loolu su amee. mais c' est grave. Mm-hmm. il faut ah, itam. yenn yi ñu xoolaat ko réviser waat ko parce que loolu quand même du violence physique mais violence morale la xam nga rek. am na solo am na loo xamante ni lii moom sama combat la. waaw c'est important fi nga daaneel na message bu am solo la. gis nañu maam Diarra Fam bari ko porte mais man dama ni ko bi mu la waxee bi mu bañee da waroon dem wutal ko certificat de décès. ni leen dafa gaañu parce que kuy dund bu la amul njëriñ bu dee wàññi yow da nga sadik te ñëpp mënuñu comme yow euh, donc bàyyi fitna yi ngay yee noonu donc di di Fatam di la remercier waat di remercier la régie comme ni ma ko waxee léegi di leen jox dig daje ci beneen numéro 13 minutes de vérité d'ici là portez-vous bien jaa ngeen